mbokk yi gannaaw bu nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante tem làmboo wala bokk ñu roote ko ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook nun ñoo dëkk bu munta ñàkkit yàlla nay soree muy baat bi ñuy wax mer am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni da koo gëj a gis lool di ko yàkkawleku ñi dox diggam ak moom bari na waaye mi ngi yuqamtiku bu ku nit làqee fekk ku jëm ndeyjoor la mu jëm càmmooñ ndax mu taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëtam moom mu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee waa ji daa jëm càmmooñ mu gaaw ci wetu ndeyjoor bu waa ji xool ndax mu teg bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def ba agsi ci moom jàkkaarloog moom am yéene lool mën naa am fa mu jóge sori na wala la mu bëgg a wax ak moom bari na waaye la mu ko wax daal mooy dama bëgg nga dénk ma defe ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk naa ko nangam ak nangam ak nangam ba mu ne gàññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bul mer boo mënta ñàkk mer bul jàpp mer mu ne tekk di ko déglu defe ne daa àggalagul wala boog daa desee dégg li mu ko wax mu ne dellu ne ko yaa rasulallah dama bëgg nga dénk ma mu ne ko bul mer ba muy ay yoon mu xam ne nag loolu la ca mën a am kero te bu ko ku ko yóbbuloo doy na sëkk dundug nit muy xadis boo xam ne day mel ne xadis yi gën nañoo guddante ci ay baat waaye baat bu ko gën a gàtt yombut a gis laa tardab muy ndénkaan lu tënku tey waaraate wu yomb dégg di baat boo xam ne lépp nga ca la muy tegtale rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddal na ko dundam gépp su fekkee merewut kenn fas yéene mere kenn ci dundam mën naa am ñu bari du ko mere kon liñ cay dégg mooy mer mbooleem jikko yu yées yi moo leen boole waaye bari na lu nit lu dal nit it mer moo ko ko teg ndax ki mer noppee muus ku mer noppee muus te ki mer waaj na ba jekk ngir fayonte ak lañ ko def ba tax ko mer te am na aw léebu buy wax ne man arada al intiqama fal yaxfar xabra yi képp koo xam ne daa waaj ba jekk ngir fas yéene fayu ji su demee bu gasalee waaj a bàmmeel ba ba bu ko faagaagalee ca la koy def na gas beneen ca peg ba moom itam bos ba boppam waaye ki mer daal noppi naa muus fas na yéene fayu wala boog fas yéene fajal boppam fayu léegi léegi wala mu fayu mu faj ko ca nam ko mën a faje mer nag ay jeexitam ay liggéeyam benn jagu ca ndax tas na ak bokk lëm tas na kër waaye dog na ak bokk boo xam ne yàllaa ko defoon njaboot gi moom nit mën naa sabablu ci ñoo xam ne bukkutoo ñoom dara ak njaboot dox seen diggante waaye mer mën na koo dog waaye mën naa tabax ba àggalit fekk daa jàll fa mu waroon a yam doole ñëw mere ko toj lépp fa waaye ak bokk goo xam ne naka jëkk ci ay maam ba léegi ñoo ko bokkit mer tax na bokk ko dog moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala du tagg kenn waaye dana kañ jaam bi ndax ay moroomi jaamam gis ko roy ko am na fi mu wax ci alxuraan ba joxañ lool ñi ñu war a roy mooy koo xam ne buñ ko defee lu jar merit mu jéggale wa ida ma ghadibuhum yaghfiruun waaye joxoñ na it ñoo xam ne royukaay lañ ci seen mer kenn mënu koo xam dañ koy wan nëbbu ko ba mu far seex mer ma seex seey am na fi mu wax ci alxuraan naan jëkkante leen wuti njëggalu suñu boroom njëggalu suñu boroom ku ko am aljanna mooy ak payam aljanna joo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf ñañu ko fa bàyyiloon moom moom na saa bañ a bokk waaye daa dégg ñu wax ko rek mu fëx ñu ko fa tegaloon mooy almuttaquun mu mel dañ ko laaj ñooñu mooy ñaan mooy mu ne ñooy ñi nga xam ne dañuy def ngir yàlla nit ñi di ko xam ak li nit ñi dul xam lu ne fàng ak lu nëbb waaye lam ca teg mooy ñi nga xam ne buñ meree kenn mën na ko bañ a xam ba ba ba mer may seex saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard lu gën a yaatu asamaan ak suuf nag laaj nañ ko Seydina Omar ne ko loo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf fu muy nekk mu ne leen maa ngi leen di laaj ba xam bu guddee fu bëccëg bi nekk wala fu bëccëgee bu bëccëgee fu guddi gi nekk yàlla dara jaxlu alladina arduha alsamawati wal ardu uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquna fi lsarai waldarai walkaadimina algayta walaafina an innas wallahu yuhibu almuxsinin bu ñu demee ci xadis danañ ca fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne képp koo xam ne daa wan na meram te mënoon a fayu wala mu faj ko ci geneen anam ba noppi bàyyi mu sedd bu ëllëgee bu yàlla di woo gaaya gaayam ya mën naa bokk ci ñi muy jiital nga xam ne ku ci nekk day jiite mbooloo ñëw te fekk lam ko amee mooy da daa wan na mer rek lu ko waaye mën a def mu wan na ko jéggale ko jéggal ko ko te waaye mën na ko bañ a xam ba ba mer may seex te su boobaay danañ ko wan jigéeni xóorul ayil ne ko gaa ñu ngi ni tànnal ba noppi kuy tànn doro tàmm kon boobu bu ñu xamee lenn ci li mer di wàññi ak wan na mer la muy jariñ waris naa xam nu ñuy moytoo mer am na ci nit ci ñoo xam ne mer da leen a jege lool wuute wuute dañ ko def ci seen jiba fu ñu jëm yóbbu ko kuy nuyoo ci jataay mujj leen nuyu sax ñu ne lu tax mu mujj maa nuyu te waroon maa jëkk nuyu daal di fees dell gux ay lex loolu nag ku ku xam ne mi ngi ci moom nay faral di toog këram bañ a génn ndax kat koo xam ne wolof na ne koo xam ne dane du ma naan lu dul ndox suñ ndoxum dëkk na gàttu tànk wala aw mar ray ko waaye am nañoo nit dañuy xëy xëy rek mere seen waa kër bu dee ko am soxna la mu mere ko te xamul lu mu ko def bu dee doom mu mere ko te xamul lu mu ko def bu dëkkandoo mu mere ko te xamul lu mu ko def bu dee kër gi moom mer mën naa soqi koo rek ci liñ togg neexu ko rek mu daal di guux ay lexam ne maa joxe woon lu tax ñuy togg lii wala niñ ko fóote niñ ma fóotale lu tax paase bi tàlliwul wala lu tax ñu xëy bale ëtti bam set te balee luñ ma kese waaye bokk yi bu fekkee bale ay loxoo koy def ay yox yomb na mi ngi jaay ci jabi na ko ku nekk na ko jënd moom dañ ci néegam bu buñ ko baleelee baax na buñ ko baleel mu baleel boppam dana ko musal ci mere waa këram ci googu anam am na ñoo xam ne fa ñuy liggéeyee la ñuy xëy xëy mere ñépp te fekk la ko waral mooy daa xool ñëpp seeni kilim di dox ab kilimam doxut képp te du laaj lu tax doxut waaye danaan guur guux ay lex bi ma jëkk wax muy waa kër gi ku ci bëgg a mucc moom benn su dee li muy togg li ñu togg neexu ko fi ñuy jaayee li ñuy togg bari na la dem tànn la ko neex su boobaa waa këram mën nañu bañ a xam meram su fekkee ni ñu ko fóotal si tut xaw ma lu jafe waaye fu ñuy fóote fi ne jafewul mu fóot lu fa fay bu dee balee luñ ko mu jënd bale def biir néegam buñ ko balee baax na buñ ko balee du mu baleel boppam buñ ko yële balee ab lalam baax na buñ ko yële balee mu yële ab lalam gannaaw moo gis a doon daa weesu yële bu laal gannaaw mooy tëdd ci laal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu joxañ rek fu mu joxañ rek ku fa jëm jaar si yoon wu jub xoj laa tax dox bul mer moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki am doole dëgg dëgg dëgg doonul koo xam ni kii buñ ko nee xat ga lay na rek mu jàggi ruur kur fañ waaye nee na ki am doole dëgg dëgg bu ko bëggee jaay na koy jaay meram saa bu mere rek na jàggi mer ma ruur rek kenn bañ a xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ni ku mer ndax moom ñoom ñoo dëkk yàlla ko bindalee ak ñoom waaye nag jikko la ju sew ju ñu war a jànkoonteel nee na bu ñu ko defee lu jar mer te fekk ci ay wax la jaar bu mu tontu na noppi ndax lu del lu ñëw dellu si waat bu yàggee ñëpp ay loxo soxante mën na caa am te loolu yi kenn xamul fu muy yem su fekkee siq na ko kam koy siq kooka mënal ko ko mën naa wuti gànnaay léegi def lu mu bugg te def te fekk mer moo ko ko teg ku demoon ci armel yi wàññi ñaata nit lañu rey ñaata fa tëdd te fekk mer la seen tëraay jaar mbooloo mu bari lay doon waaye ku dem fa ñuy denc nit ñi muy kaso yi dana fa fekk mbooloo mu bari moo xam ne seenu denc kaso ca kaso ba mer la ci mer la jaar benn muy ñoom wala ñu wala ñu seq ko kooka nanguwut a wan na baat moo tax bu ñu tënku woon ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu dénk jëmm jooji du lu yem ci jëmm ja kepp waaye li feeg ab jullit a ngi dund di jariñoo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moom ci boppam wax nañ ne léeg-léeg mu jëfandikoo ko. waaye lay tax mu mer mooy mu gis lu naqari yàlla te man te mënu ca dara daana ko yàgg naqari boobu mënu dara bindee ba manit ba bu joxee ñu ngi dog ko it day woo kooka ndax naqari lu naqari yàlla li muy def su ko ko waxee mu të mu labéere ko mu të mu xaw koo meree tuuti ndax li tax mu di ko mere du lum ko siq ak moom waaye daa def lu yàlla lu neexut yàlla te wax na ko wax mu të mën na koo fasal kanamam ñaar ba ñetti fan su jeexee mu xam ne kii narta am xéewal mer ma seex moo tax fi muy waxe ne ab jullit sëñta mere mbokkam jullitam lu ëpp ñetti fan waaye bu bu ko nit ñéegee ba war leen a defare ku jëkk tàllal sa loxo bu ñu ne ta bu ne diw jox ko loxo ka jëkk a joxe loxo raw na kam jëkk a jox loxo lu bare bare moo tax daanañ jàngale ne ku mer bu fekkee mu taxaw nañ ko àgg buñ koy àtt buñ ko téye waaye nañ ko wutal ab siis na ko toogal fii mën naa seral mer bu fekkee mu toog nañ ko jox nga ganaay ne ko sonal si ba ci kanam ndax ki taxaw moom li fekk mi ngi taxaw jekk na ngir faju ngir fayu bu fekkee mu toog bu ñu fexee ba jógut taxaw mën naa bañ a fayu sakkantuma nag bu bu tëddee bu ñu fekkee mu tëdd ñu ne ko doo jóg kon loolu lépp njàngale mu leer reer nañ la ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida gadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa in dahaba anhu algadabu wa illa falyattaja bu fekkee mu taxaw na toog bu fekkee mu toog na tëdd ndaxte lee yàlla jaare la ca seexal mer ma kon lim naa léegi ci li mer waral bokk na ca tax nañu toj kër diw ndax daa tabax ba jàll fa mu war na yam benn tas na it ak bokk bokk goo xam ne gii leen boole mën naa am muy dëkk ju yàgg wala gorom lente mer tax bokk nga doxe fa dog ak ñi nga xam ne yàlla leen ko boole woon seeni maamaat ba léegi si ñu bokk aw sant wala ñu bokk menn menn waaye mer naa mer mën naa tax ñu xëy xëy du suñ tuddante bokk nga dog dog waaye li ci raw nag mooy ab sëy moom bari na sëy boo xam ne bii dañ naan waaja yaa ko bàyyi mu ne waaw waaye nag booba dama damaa meroon rek wala ñoo ndaw si yaa ko ñaan bar mu ne waaw waaye damaa meroon kon boog dénkaane bi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallama yëmut ca waaja rek waaye ci suñ jamono it léeg-léeg ñu wax loo xam ne ñépp ay koy mer ñépp ay mereenoo ñépp ay meranoo waaye su boobaa nañ dellu si njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek xam ne fa mu joxañ rek falaa bu ne déet moom kenn ku koy def di jariñu amul bu mu ne ay ci it kenn ku ko ku ci seleng lu bañ koo def di jariñu du am yàlla nu ñal dugal ci ñaan ngam daan ñaan naan yàlla inni asaluka kalimat alxaq fi rida walgadab wa asaluka alqasda fi lgina walfaqr wa asaluka naiman la yanfa yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma lu ma wax rek nay dëgg loo dogal na ma neex te it nanga ma dimbali mukk bu muntu ñàkk mérite ndax léeg-léeg innama ana basharun bu muntu ñàkk it bu mu yàgg waaye maa ngi lay ñaan it lu ma mën a ñëwal ci am koom nu mën a toll bu ma wëlbati mukk fi ma jëmoon waaye su ma demee ba yuru ma dara it na nga ma dimbale mukk sama pas-pas bu mu yàqu waaye maa ngi lay ñaan xéewal gu dul jeexit nag yàlla na yàlla dugal ci ñaan googee kon boog dénkaay na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dénkoon waa jooju nga xam ne ba mu ko gisee daa mel ni ku luum lu mu bëgg a wax xeet ko waaye lam ko wax moom moomee ko wax yàlla na ko yàlla fay ndax su ko ko waxutoon lu ne yàlla mën na ko waaye balañ see jot dana yàgg muy baat bu gàtt dénk ma dama bëgg nga dénk ma ya rasulallah mu ne ko bul mer mu defee ne da koo déggul mu ne ko dama bëgg nga dénk ma ya rasulallah mu ne ko bul mer mu waxaat ko ko mu waxaat ko ko mu ne ñokket xam ne kera loolu la fa mën a jëlee te loola dundug lëm la yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musul seytaane gi pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin